aca aca aca aca rek waaw eh, ñoom ay xeer la ñuy sànni am ay grands. voilà yow ban doole nga am. yéen ah ba daa amul doole mais mi ngi nekk wala yéen ñi am doole ngeen toog. waaye. allo comment. ku nekk fii ci biir waaye bu bu xaajee. waaw waaw kay leen ñoom ñu ramassé fii yëpp yëpp. Hey, say yeah, why? Run the man waaw waaw gis

bu demee

前がファウルさないあボランジャーペ Olha aí, dá. Dakar Dakar Dakar ok jaajëf léegi sànni ko affaire bu ma dóoree ma ñëw lekk di ma seen yi xamal xamal naka la li nga bu ñu ñu gënalee seen Les élus de la région de Ziguinchor lancent un message solennel au président Macky Sall. Nous savons que la conséquence de tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'aboutir à l'installation d'une délégation spéciale à Ziguinchor. Le maire Ousmane Sonko est élu au suffrage universel des populations, c'est le choix de toutes les populations de Ziguinchor. les élus de la Casamance ont décidé de le soutenir, quitte à ce qu'on nous installe, nous toutes les allégations spéciales. C'est inacceptable ce qui est en train de se passer dans ce pays. Nous en avons souffert et Ziguinchor a choisi son élu qui est revenu ici pour lancer ce chantier. Le président Ousmane Sonko est dans ses plus gros chantiers qu'il a démarré depuis plus de deux semaines à poser les premières pierres. C'est en ce moment-là que le président Macky a décidé de commettre sa forfaiture. Le message ici délivré par les élus, députés, maires et adjoints au maire, présidents de conseils départementaux, c'est que ce qui s'est passé avec les autres ne se passera pas avec Ousmane Sonko. Le choix des populations de ne peut pas faire l'objet de dépravation. le maire de Ziguinchor continuera à être le maire de Ziguinchor. Nous, nous lui apportons le soutien le plus total